jërëjëf mbokk yi tey tamit ñu ngi si suñu street talk bi Korka street talk ma wax leen ne happy Ramadan once again yàlla ñu fekkee déwén ah, Ramadan bila la ah, kontaan naa si ku nekk ak gaay yëpp ah, team bi ñu leen di wis happy Ramadan benn tey rek lu ma di xamaat rek tey moom lu ñu am question yu simple la. te ñu ngi xaw a jafe tamit tey lu ñu laajte rek mooy lan moo nekk juróomi ponk islaam what are the five pillars of islam yoo leen nekk di laajte tey suñ fa jógee nag ñu ngi laajte yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata at la amoon balaa mu doon génn suñ jógee si loolu tamit loolu doon laajte ah, lu ñu laajte mooy ah, suñ fa jogee lu ñu laajte tamit mooy Seydina Aliya yonente la woon wala saxaaba la woon. son. waaw naka. ay kul yaa tudd Julle. waaw ah. ah. jalo. Diallo. Ah. bi mohammed sallallahu Alaihi Wasallam ñara ñaata la amone bala muy faatu. non man lolu xawma ko de. xawma lolu moy five pillars of Islam. non xawma lolu xamulo ko. non. lan moy juromi ponk islam yi. juromi ponk islam. Hmm. Eh, ah nga gëm ne yalla kenn la. moo la bind nga gëm ne dogal bu am rek yàlla moo ko dogal or weeru koor aj màkka génne asaka léegi yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa ñaata at la dundoon balaa muy gaañu juróom benn fukki ak ñett daal lu ah. ma juróom benn fukki ak ñett ok waaw loolu laa foog de. ok su ma fàttewut. yonante la wala saxaaba la. kooku saxaaba la. Ibu Mane. Ibu is the five pillars of Islam? Five pillars of Islam. Five pillars of Islam. Yes. Uh, Islam. Uh, Ah, I can't remember it. I ah. forget. How old was Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 64. Huh? I think 64. 64. Yeah. Ay, ah, ya alay magana ba mo? Naka Ramadan bi nak. Ah, ñu ngi ressi pam. Ya ngi ya, yor. Ya. Hay bu basa. Hmm. Yeah. Lan mo nek five five ponk Islam? Hey, bo moy pan pan bi. <laughs> Eh, tawol ki mo. Jërëjëf. Dama jappale la rek. No, no. Dama jappale la. Ya tura naka? ma Ramatulaay. Ramatulaay naka. Saaña. Saaña. yaa ngi or. yes maa ngi naka or bi. jama rek. Mm. yeah. lan moo nekk five uh, pillars of Islam. Um, uh, the five pillars of Islam are. Mm. Uh, man mun ma ko wax si English si wolof of waaw wax ko si English. like prayer. Mm. to give to give. Mm-hmm. and um, like charity. and to fast. Okay. okay. And, and go to Mecca. How, how old was Prophet Muhammad No, I didn't know. salaamaaleykum. Ah, salaam. na ngeen def. jaama ah, kan moo fi nekk Joola kan moo fi nekk Séeréer. kan kan moo fi nekk Joola ak kan ah. naka. Aliou. Aliou Sagna. Aliou naka or bi. ah boo ko tee ma mu ngi sama kaw bu baax a baax. waaw. ok Aliou Sagna. lan moo nekk five pillars of Islam. hoo sonal nga ma. sonal nga ma. man de su ma la affaire moto moom. Hmm. mun na la wax. Ah. waaye fu nga jëm moom ah. foofu dara la ci xamut waaw bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata at amoon balaa muy gaañu fuuf la lay wax nii ku jàngut moom soo ko laajee da nga koy sonal <laughs> waaw naka ramadan bi ah, ñu ngi ci kawam lan mooy five ponk islam yi moom moom bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata at dundoon balaa muy faatu 77 Seydina Aliya yonante la woon wala saxaaba la non moom xaw ma naka la de. ah mm. jërëjëf. booy yow yow yow ñu ñooy am njoolaay sax. yaatu la naka. man Adama. Adama waaw. Adama what are the five pillars of Islam. julli. Eh. or. saraat. Mm. Eh, eh, naka la. aji Màgge waaw. waaw. yonente bi moom sallallahu alayhi wasallam ñaata at amoon balaa muy faatu. 63. ah 63. waaw. Seydina Aliya yonente la wala saxaaba la. saxaaba la de. naka or bi. ñaata am tey. Ah. na yaa ngi or. maa hmm. what are the five pillars of Islam. Sahada. Uh-huh. Salah. Uh-huh. Zakat. Sawm and Hajj. Eh, yonante bi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, sallam at la amoon bala muy uh, I don't know. sayidina Aliya yonante la wala. Aliou. yonante la wala. déedéet ah, lifin la nag sahaba Dega. saxaaba. Mm. Ah. dëgg xawma duma yonante bi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam, sallam at la amoon bala muy fatu Majji suma waxe fen hauma dega dega Why pillars of Islam. Yes. Um, faith. Believe in the oneness of Allah um, performing your daily five daily prayers. Um, uh, going to Mecca. That is four now. Fasting the Ramadan. man Ousmane Cissé. Ousmane Cissé. waaw ah. lan mooy juróomi ponk islam yi. juróomi ponk islam yi. ñun moom mooy loolu ñun sàmm leen xam daanaka. ah mooy ñun sàmm leen de. Ah, Seydina Aliya yonante la wala sahaba la. yonante ya, ya la yonante la. jërëjëf mais. ñu fekkee déwén. amiin yaa nag timis bi dañ ko fooma de. Ah, fooma. xanaa poli yi ñoo ko fooma. ah dégg naa dañ ko fooma nag. <laughs> non waa ñun Jula ñun Jula de. five pillars of Islam. Euh, islam comme prière bi wala. Hmm. ñaata lan mooy ponk juróomi ponk islam yi lan. comme five prière léegi nañ move si beneen correction euh, yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaata at la amone bala mu gañu eh, non xamoon naa ko waaye dama faté nak hmm. sayidina sayidina ali yonente la wala wala sahaba la. no di eh, eh, sahaba la nak lan mo nek 5 pillars of islam. lan mo nek 5 jurom juromi ponk islam yi moy lan. julli. Hmm. waaw. julli suba non man mom maa ci business lan moy juróom ponk islam bi lan la. juróomi ponk islam moy julli. ok wa léegi yonente bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaata at la amone bala muy fatu na lol mom xawmo man mom maa ngi si dàll yi. loolu boo ci lol ñu dem ci lol man ligay la def. be be lan moy juróomi ponku islami moy mooy jëlee hmm ko nag wax dëgg yàlla sëñ bi xamu ko moom. yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata at la amoon balaa muy fa. jërëjëf. yaa ngi kuul. ah mun naa bi. ah ndax si kay. ah. naka bi nag. ah sant yàlla ñu hmm, fekkee déwén waay. amiin hmm. fekkee mooy di five pillars of Islam. Hmm, <laughs> yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa ñaata at la amoon wala muy faatu. sista bi. sista naka. moo ma si <laughs> rek. yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa ñaata at la amoon balaa muy faatu. ah hmm. Aliya yonent la wala saxaaba la. kan. Aliya. ah. wala yonent la. saxaaba the five pillars of Islam. Yes. Um, one, the oneness of God. The second one is Salah. The third one is uh, Zakah. The fourth one is uh, uh, uh, uh the fourth one is uh, the first one is the fifth one is Hajj. I know, but the fourth one. Uh, How's the first? The fat is fine. Uh, how many do you have today? <laughs> I'm not even fasting. Why? I'm not a Muslim. Ah, uh, okay. Mm-hmm. Who born Jesus Christ? <laughs> Mary, Mariam. <laughs> Who betrayed Jesus? Judas. Where did Jesus born? Isn't that Jesus born? huh? Where Jesus born? Bethlehem. Bethlehem. Bethlehem. Bethlehem. Oh, Buldauman, bro No, Baba Janda baba janda. baax waaye ko naka Ramadan bi nag waaw sant yàlla bu man Baba Janda so naga naga customer ini ñu ngi Wah, customer yi sant yàlla bu ah. baax non yàlla ñu fekkee déwén waaye Wah, fekkee ko ati atman. so nga naga ya. man what are the what are the five pillars of Islam Islam Oh, juli lah. Juli, Juli. five day prayer bi soo ko fonkee rek am nga yëpp you know. Ah. yeah man. ok. Ah, bi Muhammad sallallahu alayhi la amoon balaa muy gaañu. ñaata at la amoon oh, forty years nag. waaw forty years la ko affaire bi feeñu you know bu mu amee forty. Hmm. la nekk ak yonente you léegi. Ah, kii naka. Anabi Aliou. Aliou waaw la woon wala saxaaba kooku sahaba la woon waaw Roya Ba. ko ne naka nag. maa ngi cool mo naka Ramadan. non yefe ngi fee mu ngi fee. waaye bul daw res. non bi wori. bi wori. imam bàyyi. Eh, ya imam kay hal ya. so Mr Cissé. yeah man. Uh, what are the five pillars of Islam? yeah. waaye bo mo mangi ngi orangu maa ngi xaw a xiif. waaye ah. nit waa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam at la amon bala muy gañu non loolu moom wax dëgg ne yàlla xaw ma si dara nag. Seydina Aliou yonante la woon wala saxaaba. saxaaba la. saxaaba la foog naa de. jërëjëf. <laughs> taa suma waay dama ma kaa faj la. Hmm. yeah suma koto la. yeah yeah man. What are Islam? julli or dem Maka asaka ak gom yàlla asadu an laa ilaaha illallaah wa asadu anna muhammadan rasulullah nga ñaka force bo nga ñaka gom nga julli nga or nga dem Màkka waa génne asaka ñooñu fayat filasi yonente bi Muhammad sallallahu alayhi at la amoon balaa muy faat sixty three years la dola uh, Seydina Aliya yonente la woon wala saxaaba la non saxaaba la Aliyun saxaaba la borom ñaari jaasi ba yaa ba bu do yow la the five pillars of Islam déedéet bu <laughs> yee mu nga faa toog yee. boo yéen yéen a ngi baaree. ana ah, ñu si weeru koor. ah yéen a ngi or nii. yee ah kon yéen jàmbaar ngeen de. ah waaw man dama lay dégg nag léegi ñu ne yi xam nga mooy loolu dañ dee jéem a jalgati ak driver yi wala naka la. yee dañ dee jàngati. jalgati laa wax. si or bi si or bi. déedéet ñun moom. ah. Hmm. moom dañ dee naka. maa ngi tudd Tidiane. yee No jangan ma nag. ah yeah. yeah bro yow nag. Mohamed. ah waaw. Ya. yeah. Oke, kai. yow na nga jàng alquran. Wah. ah. waaw am nga toogee nii rek. nga ne nga jàng alquran. waaw ban saar nga yem. Jangan malik kelas. liklaas. ah. jàngal ma kelas. liklaas. lu ma bëggoon mooy dafa am lu di five pillars of Islam. Baye Pires waaw. Hmm. yaakaar naa si suma xam-xam bu julli ak or génne asaka aji màkka mutam koor si suma xam-xam xaw ma nag mais itam leneen mu. waaw léegi yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa ñaata at la amoon balaa muy gaañu. non loolu nag moom suma xam egg suma xam Seydina Aliya saxaaba wala yonante ah, ah. ah Aliya saxaaba wala yonante saxaaba hmm. thank you juróomi ponk islam hmm. waaw mooy nga gom ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nga jëm aqimu salaat nga génne asaka nga aj weeru nga weer weru kor nga aj maka sallallahu alaihi wasallam nyaata at la amoon bala muy fatu yonent bi sallallahu alaihi wasallam nyaata at la amoon bala muy fatu fogna mo ngi am nga ma juróom ñetti fukki at xawma ak juróom dal waaw sayidina Ali yonente la wala sahaba no sahaba la ya am fatu Ramadan Mubarak thank you what are the five pillars of Islam the five pillars of Islam So, sala so, sala zakat hajj and um, the other one I forgot it mm. yeah uh, how old was prophet muhammad sallallahu Alaihi Wasallam before he died i think it's 40 years huh? 40 years thank you yes are you fasting yes ramadan mubarak thank you mm. what are the five pillars of islam Mm, to believe in to believe in God, mm -hmm. Allah, to believe in the day of judgment. Mm. Okay, let's go. Let's go for the second correction now. Uh, how old was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam before he died? No, I don't know. You don't know. Lan mo nek juromi ponk islam ah. bi Muhammad sallallahu alayhi ñaata at amoon balaa muy faatu. xarab bi Amadou mu wax. fekkee déwén waay. Eh? Eh. man. Mhm. yaa naka. Yunusa. Yunusa. what are the five pillars of Islam. lan mooy juróomi ponku islam Aswadu aswadu la ilaha illallah aswadu asyhadu rasulullah uh, eh, azakat mhm. sumi ramadan mhm. hmm? hajjul bait hmm. yeah. okay. léegi eh, yonente Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaata at la amoon Nyata muy faatu ñaata at la amoon balaa muy faatu Nabu. Hmm. Oh. Ah. Hmm. Okay sedina Aliya sahaba la wala yonantel sahaba la la moy five pillars of islam ah, five pillars of islam man de man ñun jangu de bro amul maybe eh, eh, five daily prayers ah. waaw maybe five daily prayers yes Okay. Legi, yonente moom sallallahu alayhi wasallam ñata at la amone bala muy fatu of course absolutely i don't know sir ah. yes sir sedina Aliya sahaba la wala yonantel no i think it's sahaba yes sir thank you Ah, ya yo ke ya, ya tura naga. Wala itu rap pacha. Ah, naga orbi bro. Ya alhamdulillah Insya Allah. Yeah. buat apa mungkin hawa tanga naga. Ah, bora wa tanga bro. Ah. Ya. What are the five pillars of Islam? Five pillars of Islam. Ah. Ponki Islam ya, da ñaatal. Waaw, juroom la. Way ban ak ban la? Ah. <laughs> Ashhadu an la ilaha illallah. Panna Muhammad Rasulullah. Ikamus salat, ita zakat, saum Ramadan, hajjul bait yonante bi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ñaata at la amoon bala muy gaañu ñaata yis non xawma bu hmm. ok ah, sayidina Aliya sahaba la wala yonante la Alin Alin sahaba la jërëjëf thank you Aliou Aliou lan mooy five ah, juromi ponk islam yi ñooy yan juromi ponk islam yi Say saay jëggal ma li lay wara suri way ba yàlla ñu fekkee déwén. amiin yaa rabbi. ak at yu bëree bëri. amiin yaa rabbi. Mm. dégg naa nag timis bi dañ ko fooma tey. Hmm? timis yi ñu ne dañ ko foom. alhamdulilah loolu de baax na. Hmm? ok baax na moom macha dañ fooma timis bi nga ne lan. Ah, gannaaw ay nit rek a ko foomu gay. sant yàlla. ah ok léegi dafa am dafa am laajte tey. lan mooy juróomi ponk islam yi. juróomi ponk islam yi. Hmm. an la ilaha illallah. وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا لله خمان اوكي اه محمد صلى الله عليه وسلم نيار ات لا امون بلا موي فاتو موي امون 63 years اوكي سيدنا علي يونت لاون ولا صحابه لا صحابه لاون nekk rak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf. jërëjëf. ah suma gars waxoon naa leen ko nag nee ma Nasir ren ñëw ah diine fii la fekkee baax soriwuñ sax balaa ñu doon ñu doon wax ak sax gis ngeen yeneen ansas yu ñu jox so kay tey ma suñ street talk bi si leen nekka waaw. Ah, lan moo nekk five pillars of Islam yow nag diine ji nag nag si si si borom bi nga war a nga war a nga war a di laaj. waaw laaj laajala si waa ji daal mooy mooy si njëriñ bi daal jaar laaj Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaata at la amoon balaa muy faatu. ba tey nii de yaa ngi ñëw rek dégg nga comme fi ñu toll bu waxee ma wax rek daa am lu muy ndir Ramadan bi ñu si kawam ñu ngi mën moom ndànk hmm. ndànk. Hmm. lan mooy juróomi ponk islam yi. juróomi. what are the five pillars islam. Hmm. waaw yaa ngi am si mooy lifin weeru koor ñu or weeru koor. am zakat mooy génnee asaka am julli mhm. am lifin tamit comme féet yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaata at la amoon balaa muy faatu yonente bi muy amoon juróom benn fukk ak ñetti at mm. balaa mu faatu ok ah, Aliya yonente la wala saxaaba la um, Seydina Ali moom saxaaba la woon moom waaw saxaaba woon ba pare xalifa la woon. jërëjëf xalifa général ah, lan mooy lan moo nekk juróomi ponk islam yi. Ah, ponk islam daal foog jule moom mooy mainting jule bokka na ci moom. ok. because men juli fonk islam xol bu set daf ci bokk. Mhm. ay baax daf ci foofu mënumaa dem foo daa daan daat. ok yonent bi Muhammad sallallahu ñaata at la amoon balaa muy faatu. loolu xaw ma ko tubi kandet. Hmm. waaw. Seydina Aliya saxaaba la woon wala yonent la. boobu tam notumaa noo la ci. thank you sir. man maa tudd Bathie Koor. ok lan moo nekk juróomi ponk islam yi. juróomi ponk islam ah weeru la bokk. Hmm. julli ci la bokk. Hmm. dem Makka ci la bokk. saraxe ci la bokk. yooyu di la ci xam nga. yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam bu mu doon faatu ñaata la amoon. Ah, juroom ben fukki at ak ñet hmm? juroom eh, juróom benn fu juróom fukki at ak Aliya sahaba la wala yonante lawon sahaba la. What are the five pillars of Islam? They are, um, can I mention them? There are five. There are five pillars of Islam. What are they? The other one is um, Zahad. and the other one is okay now how old was prophet muhammad sallallahu before he died before that i was he 63 huh he's 63 63 old what are the five pillars of islam the five pillars are shahada zakat hajj uh, prayer mm. and Shahada, Zakat, Hajj, prayer and fasting, Saum. There are four, five. Okay. Now, how old was Prophet Muhammad sallam, before he died? The Prophet was 63 years before he died. Yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata at la amoon balaa mu gaañu. Yonent ah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi amoon 63 ah, years. ok waaw. Ah. Seydina Aliya. waaw yonent la wala saxaaba la. Seydina. aliya di bon aliya aliyu ndax aliyu waaw saxaaba la saxaaba la saxaaba ah, five pillars five pillars of islam five pillars of aj màkka aj màkka ak génne asaka ak ah, or weeri koor ak tuta baat bi yes jërëjëf thank you very much tur bi eh. Ah, lan mooy five pillars of islam eh. five pillars of islam. ah bobu de julli or aji maka joxe asaka. Hmm. waaw. ok. Mhm. baax na legi. yonente hmm. bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam. Hmm. ñaata at la amoon balaa muy fatu 63. 63. Seydina ali sahaba la woon wala yonante la. sahaba la. Mm-hmm. jërëjëf. thank to ma ne lan mooy juróomi ponk islam yi. eh non man nag détail yooyu moom bàyyi boo bëggee daanaka dama ci jàngul lu bari de. Mm. waaw. yonent bi ñaata at la amoon balaa gaañu. non xoolal. ustaas bi mu ngi nele daal boobu. jërëjëf waaw maa ngi nele. <laughs> what is the five pillars of Islam. the booy bàyyi ma <laughs> yaa ma reetaan loo. waaw c'est ça bu ma reetaan loo booy. waaw ok. waaw. bro waaye beeree nga ba nag. Ah. What are the five pillars of Islam? Boy, <laughs> no, yeah. <laughs> Boy, yeah, boy, yeah. Zakat, mm-hmm. fasting. Mm-hmm. I believe that the, uh, uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. is the last messenger. and believe that there is only one God, and that's Allah. And Hajj. Okay. Pillars of Islam. Uh, this thing is there, Zakat is there, Hajj, uh, Saharadu, uh -huh. Salah, uh -huh. and the other one, <laughs> uh, Zakat. ñaata ñaata Yes, la prophète Mohammed amoon balamu muy ge balaa muy dee.

saraxe aji màkka déet xale yi bu leen ma jaxase yi tamit ah man ak ban laa wa julli xoor weeri koor aji màkka di saraxe ak juróom bi ban la ok ah, Seydina Aliya Seydina Aliou la woon wala yonante la saxaaba saxaaba la woon Abu Bakar. Huh? Abu Bakar. What are the five pillars of Islam? no, how much? Boy, Tonduli. No, how, how. The five daily prayers, to give azak, zakat, to Hajj to Mecca, and to, to fast Ramadan. How Prophet Muhammad before he died? Uh, 60, 60, 60. <laughs> uh, what are the five pillars of Islam? The five pillars of Islam. Hmm. Shahada. Allah ilaha illallah. وصلى الله محمد رسول الله وإيتاء الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام اوكي يونس محمد صلى الله عليه وسلم نيات لا امون بلا موي فات ا بوم نا خامكو سيدنا علي يونس لا ولا صحابه لا سيدنا علي علي ا صحابه لا جيري ثانك يو ا كامي صلات ا صلاه الله لا اله الا الله اقام الصلاه ايتاء الزكاه صوم رمضان حج البيت ok yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at la amoon balaa muy faatu. Eh, lan moo nekk five pillars of Islam. <laughs> asri. saara. <laughs> yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata at la amoon balaa mu gaañu. Yeah, na was 60 la wala saxaaba la. Seydina Aliou saxaaba la. Euh, ponk lislaam juróom la. comme ni ñu ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee. bu ci njëkk mooy shahadatu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dégg nga إيتاء الذكاء صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا kon ponk lislaam juróom la bu ci njëkk mooy nga wax nga seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla yàlla rek moo fi nekk yàlla rek daa nga moo am boo jugee ko ci loolu nga seede ne Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu yàlla la te yàllaa ko yónni te jaamu yàlla la boo génnee ci loolu ba ca tegu mooy taxawal julli ba tey ci ponk lislaam yi ci la bokk boo jigee ci loolu eh, iqaami salaa itaay zakat mooy génnee asaka naka noonu tamit ci li nga xam ne ci lañ nekk ni mooy sawm ramadan or weer koor ci ponk yi ci la bokk wa hajjul bayt liman istataa ilayhi sabila ak aji néegi borom bi ci koo xam ne eh, mat na loolu kon daal ponk lislaam yi juróom la ci gàttal. ok ok euh, yonente bi Muhammad sallallahu alayhi ñaata at la amoon balaa mu doon faatu. yonente bi sallallahu alayhi wa eh, bala mooy génn àddina amoon na juróom benn ñett loolu la amoon mooy sixty three loolu la amoon macha allah. Seydina Aliya euh, yonente la woon wala saxaaba la. سيدنا علي كوكو صحابله